ngi sant yàlla ma wax sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekkee ko tal ko ba mën a ñëw voter pour treizième législature ñu ñëw nag fekk fii militan yi euh, suñu waa koñ yi ñu jóge feneen suñu mbokk yi suñu xarit yi am na ci ñu voté ba pare ñibbi waaye am na ci ñu voté ba pare toog du ñu xaar ñu gis ne euh, bari na ñoo xam ne xam nañ li ñu bëgg je pense que majorité bi sax xam nañ ñu bëgg benen bi ci dama gis militants yo xamné non seulement dañu remplir cet acte euh, accomplir cet acte citoyen parce que on peut ne pas être politique et voter mais aujourd'hui nous ci bari pour que la liste de nos soit majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale et c'est ça qu'on cherchait c'est ça qu'on a trouvé ici donc je ne peux que m'en réjouir Benin bi nous ñi nga ci bureau yi gis naa vraiment ñu toog dal dal euh, euh, état bi ñu di ko won nit ñi waaye nit ñi fekk nañu xam ne que ne xam nañ li ñuy fekk ci biir kon tey daal li maa ngi déglu aussi ci yeneen centre yi en tout cas dans Thiès Thiès Thiès Ouest en tant que présidente de la commission des femme de Thiès Ouest maa ngi dégg ne que ne ça se passe très bien kon du ma mën lu dul gërëm militants yi gërëm Thiessois yi gërëm waa Ouest gërëm les femmes de Benno Bokk Yaakaar et toute la coalition bala may terminer nag damay wax leen parce

këram la pare nag ñu toog di xaar parce que bu ngoonee bu neexee yàlla ñu mën a fêter suñu victoire il faut y croire il faut la victoire euh, applaudissez ça il faut applaudir et loolu mooy wax ji sant ñëpp gërëm ñëpp voilà